L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons en Russie où le président russe Vladimir Poutine a ordonné la tenue d'exercices nucléaires dans un futur proche impliquant notamment des troupes basées près de l'Ukraine en réponse aux menaces de dirigeants occidentaux envers Moscou a annoncé aujourd'hui lundi le ministère de la Défense. Au cours de l'exercice, une série de mesures seront prises pour s'entraîner à la préparation et à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégique, a déclaré le ministère dans un communiqué. Il ajoute que la mesure avait été prise sur instruction du commandant en suprême des forces armées de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. En Gambie, le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a tenu à manifester son indignation par rapport à l'inertie et à l'inaction notée face au bombardement perpétré par l'armée israélienne sur Gaza. Le Sénégal est particulièrement préoccupé par la situation catastrophique à Gaza sous le regard indifférent de la communauté internationale face à l'inertie du Conseil de sécurité au mépris des règles humanitaires les plus élémentaires, a dénoncé le chef de à l'occasion du 15e sommet de l'Organisation de coopération islamique OCI tenu à Banjul en Gambie du 4 au 5 mai 2024 sera ce rapide survol de l'actualité internationale au pays de Toumaï où les Tchadiens ont commencé à voter euh, ce lundi 6 avril pour la première fois depuis la prise de pouvoir des militaires en 2021. Les bureaux de vote disséminés dans ce vaste pays d'Afrique centrale ont ouvert à 6 heures locales, 5 heures GMT et ont fermé à 17 heures heure locale, soit 16 heures GMT. Aux yeux des analystes, Mohamed Idriss Debitno s'est installé au pouvoir en tant que président de transition du Tchad en avril 2021 lorsque son père, le président Idriss Déby, a été assassiné par des rebelles et le favori scrutin euh, toutefois, son principal rival, le succès Masra, qui n'est autre que son premier ministre, a attiré des foules plus importantes lors. xibaaru bitim réew ci seen télévision régionale de prestige ñu daal di ko tàmbale fi nga xam ne fédération pour ici président Bobé, a dit Vladimir Poutine daal dina jóge ndigal wax nañu amal Tagudu jëm ci nucléaire euh, ci bés yi di ñëw ñu wax ne nag ñi nga xam ne ñooy troupe russe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca frontière ba ca wetu Ukraine ñooñu nañ ca bokk li waral ñu wax ni ni mel de mooy ne daal dafay mel ni kuy ton menaces yi nga xam ne ay dirigeants occidentaux ñoom ñoo ko yëkkati jëmale ko ci Moscou euh, tey jii euh, ci li nga xam ne moom mooy lënd bi ka ko waxte moom mooy ministère de la défense bu réewum Russie ci exercice militaire yooyee dinañ wax ne daal dinañu jëmmal la nga xam ne ay méthode d'entraînement la ngir waajal lépp loo xam ne rek cong la jëm ci nucléaire loolu nag la ministère de la défense daal di xamle ci li nga xam ne moom mooy communiqué dolli ca ne daal mesures yooyu ko jël bu seen di commandant en chef suprême pour forces armées fédération Russie du Vladimir Poutine joxe li nga xam ne moom ndigal jóge fi nga xam ne moom mooy Russie ñëw fii ci Gambie président bu réew réewum Sénégal di son excellence Bassirou Diomaye Faye euh, daal dina yëkkati kàddoo wax ne ngay ñaawlu wala mu ngay wax fësal ñàkk àndam li nga xam ne ñu ngi koy def fi nga xam ne moom mooy bande de Gaza ci armée israélienne di amal ay bombardement jëmale ko ci askan ba wax na ne de Sénégal loolu daal dina ko métti lool ba tax na nag euh, loole wax na ne ñi nga xam ne ñooy waa communauté internationale euh, dañoo saytaan waa conseil de sécurité bu Nations Unies daal nga xam ne faat la ak li jëm ci wàllu dund ñàkk foofu ca goxub Gaza tax na nag wax na ne daal euh, Sénégal mu ngay ñaawlu ni ni mel euh, kàddu yooyu nag mu ngi ko yëkkati ci fukk ak juróom-meelu sommet bu organisation de coopération islamique di OCI amoon ca Banjul ca réewum Gambie ci ñeenti fan jàpp juróomi fan ci yorub mai bi ñu weesu. jeexalee xibaaru bitim réew yi fi nga xam ne mooy dëkku tumaay ya foofu dee askanu pëccaat daal dinañu xëy tey ci suba ci altine bi yemoo ko juróom benn fan ci weeru avril doon dem di tànd seen njiitu réew ñu riis ne nak loolu dee te muy am ginnaaw bu militaire yi jëlee nguur ga ci atum 2021 bureau de vote yi nag daal dinañu euh, tijji ci goxub Afrique centrale boobee euh, ba 6 heures du matin jotee local nekkoon 5 heures du matin GMT waaye nag tëj nañu ci 17 heures jotee di 16 te ñi nga xam ne nag seen xam-xam màcc na euh, ci li jëm ci wàllu euh, analise politique wax nañ ne de euh, kii di Mahamat Idriss Déby no mi nga xam ne moo toogoon ca pouvoir ba ci jamono bi amee transition ci weerub avril ci atum 2021 ginnaaw bu baayam ba di président de Déby Itno daanoo ci toolub xare te ay rebelle faatoon bakkanam ñu gis ne nag Mahamat Idriss moomee de wax nañ ne moom mooy favori ci li nga xam ne moo jëm ci élection yi waaye nag wax nañ Saloum di Succès Masra bi nga xam ne moo nekk premier ministre am euh, ci campagne électorale bi nag euh, moom fu mu dem euh, campagne am na fees del ak nit dañu gis ne daal ñaar ñoore di Mahammed de Déby ak Succès Masra ñoom daal su moytulee kenn moom mooy gagné élection présidentielle yi nga xam ne ñoo tàmbali tey ci bésu altine gi foofee ca réewum Tchad